allahuma salli ala sayidina muhammadil fati lima waliq walxaatimi lima sabaqa nasir alxaq bilxaq walhaadi ila siratika almustaqimi wa ala alihi xaq qadri muxtaar azim radiallahu taala an asxaabi rasulillah wala xawla wala quwata illa billah ya himmati cheikhi uxduri lana bi hada almaxdari waltaatufi bi nadratin taati lana bi zafari ñu ñëw ci suñu darsu nasiha incha allah wax ji mawlana Cheikh Ahmad Tijaani moo ko wax ci ifaadatu ahmadiya 127e wax ji Cheikh Tidiane mu ne law alimtum ma fi lwazifati min alfadli la ataytumuha habwan Cheikh Tidiane mu ne law alimtum su fekkoon ne xam ngeen maa fi lwazifati li nekk ci wazifa min alfadli ci ngeneel la ataytumuha di ngeen dikkee wazifa habwan donte da ngeen di raam su ngeen xamoon ngeneel bi nga xam ne moo nekk ci wazifa mu ne kon di ngeen dikkee wazifa di ngeen ñëw ci wazifa donte sax da ngeen di raam loolu nag lu jërë jàngal la jamono ji ndax bëri na suufiyanke yoo xam ne yow rawatina ay tijaani yin dematuñ wasifa wasifa moom moom fi ñu toll nii zikru jumaa bi lañ gën a farataal sax ni wasifa dematuñ wasifa te xamuñ wasifa dañ ko war di def chaque jour waaye ci mbooloo itam dañ ko war a def dégg nga sababuhu li nekkoon sababu wax ji anna baad al ixwaani saqula alayhi al majiu lil wazifati li kibari ni mu ne lenn ci mbokk yi mbokk tijaani yi dégg nga dafa diisoon ci moom lool mu ñëw wasifa parce que dafa xawoon a mage lool lool lool dégg nga wa siqli badanihi yaramam itam xawoon a diis lool lool wa bu'di daarihi waaye këram itam sori woon zaawiya bi lool lool lool wa kaana zamaanu id daaka zamana chitaa'i ci jamono jooju itam ci jamono chitaa'i la maanaam jamono eh, eh, seddaay la woon ca Marok boobu mu ngi sedd dégg nga fastaadara xaalihi li saydina radiallahu anhu fa dakarahu après mu jàppal mu mu mu wax Cheikh Tidiane ngantam mu wax ne na Cheikh Tidiane na ko Cheikh Tidiane jàppal ngant parce que yaramam diis na parce que itam ñëwam dégg nga maanaam këram dafa sori zawe bi lool lool lool lool nga ngir mu dox ñëw ci wasifa bi dafay diis ci moom yaa ngi dégg mu sàkku ci Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane jàppal ko ngant boobu nag la Cheikh Tidiane radiallahu anhu wax wax ji Cheikh Tidiane ne ko law alimtum su fekkoon xam ngeen maa fil wasifati li nekk ci wasifa minal fadli ci ay ngëneel la ataytu muuha wan di ngeen dikkee wasifa sax donte da ngeen di raam dégg nga <coughs> tuskaru alwazifatu maratan waxidatan bayna al yowmi wa laylati fi ay waxtin amkana al ijtimaa fiihi wasifa na ngeen xam ne dañ koy zikar ci bis bi benn yoon maratan waxidatan bayna al yowmi maanaam benn yoon lañ koy zikar dégg nga ci biir bis bi dégg nga moo xam bëccëg la moo xam guddi gi nga ko def fi ay waxtin ci waxtu bu mu mën a doon nag am kana waxtu boo ko mën a def rek baax na dégg nga waaye al ijtimaa fii pour nit ñi daje ci waxtu woo xamante ne nit ñi mën nañ ci daje pour def wasifa rek loolu mën a nekk ida kaan fil mahalli jamaatan su fekkee ne barab boobu noonu mbooloo mu mën wasifa ñoo nga fa lu ko commencé ci ñetti nit dégg nga jëm kaw wal ijtimaa laha in tawaffara chartu sihatin daje bi itam su fekkente ne dëppoo charte yi wéral seen daje yaa ngi dégg bu fekkee ne charte yiy wéral seen daje eh, matale na itam war ngeen daje ngeen wasifa eh, nga gis ne <coughs> Seydi Ahmad Sukayrij radiyallahu anhu wax na ko ci téeréem buñ tuddee yawaqitul ahmadi al irfaniya mu jële ci Seydi al aarifu billahi Seydi Ahmad Abdoulawi dégg nga mu nekkoon koo xamante ne ku daan eh, fuglu wasifa la waaye daf daan mettit lu itam yaa ngi ci daje bi nga xamante ni nit ñi war nañ ko daje dégg nga ci wasifa parce que nit ñi daawoon daje mbooloo mu bari daf ko daan mettitlu yaa ngi dégg di ko jàmbat dégg nga wax na itam moom Seydi Ahmad Abdoulawi dégg nga asxaabu cheikhi hum asxaabul wasifa dégg nga mu ne sahaaba Cheikh Tidiane yi ñoom ñooy sahaab ñoom ñooy eh, eh, borom wasifa ñoom ñooy ñooñu wasifa waaw sahaaba Cheikh Tidiane ñooy ñooñu wasifa te damay faral di wax ne sahaaba Cheikh Tidiane yi nañ bàyyi xel ne mooy ñooñu faydu parce que Cheikh Tidiane ba muy déclaré loolu la wax te ati faydatun ala ashaabi faydu dina ñëw ci sama sahaaba yi kon buñ demee ba faydu ñëw ñu gis ne faydu boobu ci sahaaba Cheikh Tidiane yi la feeñ te mooy Cheikh Ibrahima ak ñooñam kon ñun war nañoo fonk wasifa war nañoo dundal wasifa ci waxtu wu nekk ci bés bu nekk yaa ngi dégg boo xamante ne ñu ngi koy ñu ngi koy eh, eh, def dégg nga moo tax mu ne ashaabu cheikhi hum ashaabul wasifa yaa ngi dégg mu ne wa umuman fal wadifa waajibatun mu ne ànd ak ñoom ñëpp ak matale wadifa moom lu war la ci mbooloo fil jamaa illa ida xaala duunaha udrun mu ne lu dut nag da nga am ngant parce que ngant du ñàkk ngant yi nga xam ne moo lay téye ba doo mën a wasifa lan la mu ne ka maradin lu mel ni ki feebar boo feebaree am nga droit bañ a wasifa ji parce que da ngaa feebar wa shiddatin matarin wala taw bu métti métti métti muy taw taw bu metti loolu mun na la gàllankooral ba doo wasifa si wa waxlin wala dafa waame maanaa dafa taw ba yoon bi potoxo bi dafa bëri ba munoo ci aw munoo jaar ci potoxo bi pour dem yaa ngi dégg loolu dafay faral di am loolu itam eh, ngant la pour nga dem yaa ngi dégg wa xaw xawfin min xatlin wala nga ragal ku la rey ci yoon bi booy dem wasifa nga ragal ku la kar rey la ci yoon bi loolu itam ngant la aw darbin aw sijnin wala nga ragal ku la dóor wala nga ragal ku la tëj dégg yu mel noonu dégg nga wa xayri daalika ak yeneen yu mel noonu min al aadaari ci ngant yi al maqbula yi nga xam ne nangu nañ ko ne ngant la dégg nga loolu ñu bàyyi ci xel mu ne dinañ daliloo maanaam dinañ jël dalil ci wazifa ñu xam ne dëgg-dëgg euh, euh, euh, loraange yi ci nekk ak ñàkk koo fonk bi ci ne Mawlana Cheikh Tidiane radiallahu anhu dafa bind eh, eh, eh, Seydi Mahmoud Tunisi radiallahu anhu nga xam ne kenn la woon ci sahabaam yu mag yi sahabil jëli la woon dégg nga nekkoon ci ron Cheikh Tidiane radiallahu anhu dégg nga mu bindoon ko lettre moom moom Cheikh Tidiane radiallahu anhu yaa ngi dégg mu koy wax dégg nga bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman dégg nga ginnaaw eh, bi mu commencé ci bisimilah rahmaan rahim julli ci yonent bi wa dégg nga ak i ñooñam ak i sahabaam salmal ci ñoom dégg nga mu ne baada hamdillahi jalla jalaaluhu wa azza kibriyaahu wa taala izzuhu dégg nga wa majduhu dégg nga radiallahu anhu mu ne wa kaana yasilul kitaabu ila yeddi habibina dégg nga wa safina seydil mahmoud tunisi dégg nga ginnaaw sant yàlla dégg yàlla mu màgg mi yàlla mu tedd mi yaa ngi dégg yàlla mu sell mi dégg nga mu ne ginnaaw bi nga xamee ne dégg nga egsi na suñu dégg nga eh, eh, eh, téere bi wala lettre bi mu jëm ci dégg nga suñu ci loxo suñu soppe dégg nga suñu woy sell mooy Seydi Mahmoud Tunisi dégg nga radiyallahu anhu mu ne salaamu aleyka wa rahmatullahi wa barakaatuhu yàlla na jàmm nekk ci ak yërmandeem ak barkeem mu ne ginnaaw loolu wa baadu ginnaaw loolu fasmaa jawaaba ma saalta anhu min as-su'al mu ne déglul ci li nga xamante ne laajte nga ko ci sa question bi yow Seydi Mahmoud Tunisi amal wazifa da nga fa uxadiruka taxdi xadran da nga fa uxadiru eh, fa uxadiruka taxdiran shadidan dégg nga mu ne ginnaaw <coughs> loolu mu ne ko wazifa nag maa ngi la koy moytandiku loo dëgg-dëgg moytandiku bu tar dégg nga shadidan maa ngi lay moytandikuloo moytandiku bu tar bu méttee métti min tarki haa ci nga bàyyi ko maa ngi lay moytandikuloo wasifa bu ko bàyyi moytandikuloo bu métti sax bu tar bu ko bàyyi wa taarikuha min ashaabina yafuutuhu xayrun azimun Cheikh Tidiane mu ne képp ku bàyyi wasifa benn yoon mu ne xiiw maanaam mbaax gu rëy rëy rëy rëy raw na la waaw mbaax gu rëy raw na la mu ne laa yen la lahu de nga eh, eh, maa faata dalika al xayru dégg nga mu ne loolu kenn mënu koo jàng dégg nga xiiw boobu noonu maanaam mënoo ko réparer mukk mukk mukk yaa ngi dégg ci loolu nga xamante ne romb na la munoo ko réparer dégg nga mu ne aslan lu mu mën a doon mënoo ko réparer illa annaka in wajadta dikraha maal fuqaraa fa wa afdal wa ala mu ne lu dul nag yow am nga ñoo xamante ne bokk nga ak ñoom way ñàkk fuqaraa yi bokk nga ak ñoom di wasifa ak ñoom mu loolu mooy li gën waaye loolu mooy li gën a kowe itam mooy nga bokk ak ñoom wasifa su fekkente ne am nga ñoo bokkal wasifa moo xam ñetti nit jëm kaw nga fexe ba bokk ak ñoom wasifa di wasifa dégg nga way lam tasit al fuqara su fekkente ne amoo way ñàkk yi nga ñoo bokkal wasifa de nga wax daka mën nga koo def yow kese waaw mën nga koo def yow kese mu ne wala tatrukuha hatta yawman surtout jaani mën a Seydi Mahmoud Tunis bu ko bàyyi donte benn bis la sax benn bis bul bàyyi wasifa wazkurha marratan bayna layli wan nahaari mu ne ko dee koy zikkar benn yoon diggante guddi ak bëccëg wasifa benn yoon lañ koy def diggante guddi yaa ngi dégg ak bëccëg mu ne wa man wajada zikru zikruha mahal fuqara wa zakara waxdahu axta assawaab mu ne képp koo xamante ne am nga ñoo ko bokkal wasifa nga nga bokk ak ñoom ngeen def wasifa dégg nga mu ne nga bañ koo def nga def ko yow kese bañ a dem ci mbooloo mi nga def ko foofu noonu mu ne yow da nga eh, eh, eh, yool bi di nga ko di ko ñàkk waaw yow moom yool bi di nga ko ñàkk yaa ngi dégg su bobaa ñu ñu ñu ñu ñu ñu bàyyi ci xel da nga taalibe yi wala ñëpp da nga nañu góorlu ci wazifa yi yaa ngi dégg nañu góor góorlu ñu dundal wazifa yi na Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu wax na ko lu bare bare bare bare ci ay ay ay ay leetram su ko defee dinañ tënk fii nii allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqqa qadrihi wa miqdaril azim abonnez sur notre chaîne Dahiratoul Fadly Dahiratoul Fadly kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay sigil kese la dem si di baram